jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfaat Serigne Béthio mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare maa ngi leen di nuyoo ci turu soxna Aïda Saliou Thioune moom Serigne Béthio tey jii ci dimanche dëppoo ñeenti fan ci weeru octobre maanaam dimanche 4 octobre 2020 muy jotal kàddu yi ci mboolem mbokki taalibe yi cantakoon yi diggante Touba kër Serigne xel xelkom ak daaru salaam mat labul fawsey ni nuuru daarey ni soxna si nee na moo ngi tàmbali kàddoom ci nuyu Cheikh Mouhamadul Muntaxa te di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye mi ngi nuyu Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou buntam ci Serigne Saliou di ko ñaanalit mu yàgg fi lool te ànd ak mi ngi nuyu mbokki taalibe yi cantaakoon yi ma wax te di jotal ndigalam ci mboole seen cantaakoon yi mi ngi wax ni mbooleem fu cantaakoon mën a ne nee na digal na la nanga nga di ñëw daa di jël sëb cër ci màggal gi te boo noppee foo mën a dëkk ci biir réew mi lum sori sori nga dellu fa te dundal màggal gi ci sa biir këru bopp te nee na nga dëppale ko ak ni ko Serigne Mountakha digle mbokki taalibe yi nga xam ni jot nañoo ñëw ci biir dëkk bi Madinatu Salaam ngir màggal si nee na digal na mbokki taalibe yooyu yi nañu daal di dem jël seenub cër ci màggal gi bu ñu noppee ñu takkaat seeni bagage fépp fu nu mën a dëkk ci réew mi nee na nañu fa dellu dugg seeni kër te màggal fa màggal gi te dëppale ko itam ak ni ko sëriñ bi diglee nee na moom ci boppam moom soxna da nee na màggal gi mi ngi ko fas ne dundale biir këru boppam ànd kook njabootug boppam gisus ci moom te nee na dëppale ko it ak ni ko sëriñ bi diglee nee na kon ndigal loolu mu fas ne defe noonu mu koy defee nee na digal na ko mbooleem cantaako ni kenn ku ci nekk foo mën a dëkk moo xam mbuur la moo xam ndakaaru la moo xam Cees la moo xam Tamba la fu mu mën a doon ci biir réew mi képp ku fa mën a nekk di ab cantaakoon nga ñëw ci biir dëkk bi nga nga jël sa cër ci màggal gi soo noppee nee na nga daal di delluwaat fa nga dëkk nag nee na nag nga daal di fay dundale màggal gi te dëppale kook ni ko sëriñ bi diglee wax jaa ngi noonu kon na ñëpp ñëw jël seeni cër su noppee foo ay mën a dëkk ci biir réew mi moo xam Tamba la moo xam Ziguinchor la moo xam Thiès la moo xam Dakaaru la moo xam Mbuur la foo mën a ne nga ñëw jël sa cër soo noppee nga delluwaat sa sa kër ga nga dëkk sa dëkku bopp nee na nga dundal fa màggal gi màggal ko fa te dëppale koog nag bëgg-bëggu sëriñ bi ndax moom soxna da nee na këram moom moo fa fas yéene ne ak njabootug boppam te di ko fa dundal nee na it wa digalul benn taalu bi nga fekk si ko biir këram naan da ngay ànd ak moom màggal gi na ko ku ne defee fa nga dëkk wax jaa ngi noonu wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ñu ngi koy ñaanal moom soxna da mu yàgg fi lool te ànd ak wér mbokk yi ku ne màggal sa xel ci li muy jëkk a dem mooy berndeel bégal doomi aadama yi bégal gani xaadimu soo yi mbokk yi boo nee berndeel sa xel fi muy dem mooy huile j'adore diwlin j'adore mooy diwlin bi nga xamante ni àndul ak benn cholestérol mooy diwlin bi nga xamante ni moo mën a bégal doomi aadama ci togg gu mu mën a doon rawatina ñu jëm màggal ci dëkkub Serigne Touba ba mbokk yi huile j'adore fas yéene leen faa fekk ngeen ànd ak moom ñu berndeel gan ñi ñu ànd ak moom ñu teral doomi aadama yi huile ca Touba boo ko soxla da ngay woo Pape Dieng marché Ocass 77 533 87 37 wala nga woo Baye Abdou. ci 77 241 81 57 sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wér jërëjëf Serigne Touba huile j'adore mooy sunu diwlin.